maxat xikmatul yawmi li tarbiya al islamiyya wa taalim markaz Cheikh Mouhamadul Mourtada nekk Thiès cité ouvrière parcelle numéro 31 téléphone 77 633 77 56 ci ñu bëgg bind seeni doom wala ñu bëggi leeral ci daara ji ndax tàmbali na tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo tukkee ji sunu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy waxam yu am njariñ yooyee nga xam ne nii ñun ñoo taxoon mu di ca sonn di ko bind damay wax ne sëñ Tuubaa amutoon jot rek di bind waaye lam wax ne lam an xumaa lam yëfi di mosuma jublu lu amul njariñ kon njariñ yi ñun la ko doon defal nañ ko gëstu te jéem koo jariñoo xikmab tey bii nag buñ demee ci al majmuatu suxra di téere ba nga xam ne ne Cheikh Abdoul Ahad daf ca dajale xikma yi Sëriñ Tuubaa ci page 123 euh, xëtu téeméer ak ñaar ko ñett danañ fa fekk wax jii may wax sëñ Tuubaa di ñu wax mm, nit ki ki nga war a toogal ki nga war a jataayool waaw kon nag kenn ku nekk war ngaa xool ki ngay jataayool kumu ndax sëñ def daf wax ne mboolem jataay yi kat weesuwut juróom-ñaar koy toogal ku ne kenn la ci juróom-ñaar yi juróom-ñaar ñi moo tax mu ne fa jamihul majalisi sabaa Ah, jataay yi yëpp yëpp yëpp yëpp juróom-ñaar lañ ñu ne ko ban ban mu ne mu jaalasatul wali yi toog ak wàli yu yàlla wa mu jaalasatul alimi ak toog ak borom xam-xam wa mu jaalasatul xani yi ak toog ak borom alal wa mu jaalasatul yi ak toog ak ku ñàkk mu jaalasatul jaahili ak toog ak ku réer wa mu jaalasatul nisaa yi toog jigéen wa mu jaalasatu sibyaani ak toog ak gone nee na juróom-ñaari jataay yi moo am koo toogal ku ne kenn la ci juróom-ñaar yi mënu koo génne mun na nag wa kullu man jaalasa waaxidan minhum yatawalladu minha ashayaan koo ci toogal ci ñoom ñii jataay ba ñaari mbir dana ca juddoo dañ ca amee ñaari mbir kon nag ñu déglu kenn ku nekk boo toogee moom ñaari mbir yam lay jural bu dee lu baax ñu def bu dee ab safaan ñu wattandiko mu ne mu jaalasatul wali yi toog ak nituk yàlla ñaar nga ci mën a jële muy zuba az-zuhdu wal baraka dëddu àdduna ak barke yàlla ñu ko yàlla defal loole lu baax la wa mujaalasatul aalimi toog ak boroom xam-xam ñaar nga ci mën a jëlee muy ahi al ilmu wal xikma muy xam-xam nga cay dolli ko ak xam-xamu xikma bi nga xam ne nii euh, dee su ko jàng ci téere yi te xam-xam bu leer la wa mujaalasatul xani yi toog ak borom alal ñaar nga ci mën a jëlee mooy xira al xirsu war raxaba bari xëymamte fi àdduna ak xir ci àdduna xir ci àdduna ak bari xëymamte fi yàlla na ci musal wa mu jaalasatul faqiir yi toog ak ñàkk ñaar nga ci mën a jële muy joxe shukrullahi wal ghina sant yàlla ak doylo yàlla nañ ko yàlla defal loolu lu baax la moo tax yonent bi ku daan toog ak faqiir la ak miskin yi wa mu jaalasatul jaahili toog ak réer ñaar nga ci mën a jëlee muy ni ma an nisyaana wal maxsiya fàtte la nga jotoon a xam ak i mooy yàlla ci yàlla musal mu jaalasatu nisaa toog ak jigéen ñaar nga ci mën a jëlee muy duma abdullu wal maxsiya toroxtaane ak i mooy yàlla musal wa mu jaalasatu sabi yi toog ak gone ñaar nga ci mën a jële ci jataay ba muy dola ab dax ko wal laib réew ju bëri ak pomu bëri rek te loolu kon xam na ne amul njëriñ kon nag kenn ku nekk ki ngay toogal na ko xool sëñ Tuubaa day wax sax ci nax ju ne rek bu bul toog ak ku la dul dolli diine ak xel mu rafet ndax wax nañ ne kat nit ki ka muy fréquenté euh, jikkoom rek lay yor maanaam ma ngi ca diine yi ka muy fréquenté sëñ Tuubaa loolu da koy wax ci nax ju wala tujaalis gayra man bihi tuzaad diinan wa aqlan abadal tanal muraad fa axbaru bi annama almaru ala diini xalilihi xadiisan nuqila ba tey ci nax daf cay wax ne rikk waay boo nekkee ki nit di leen fréquenté xoolal ña ci gën ngay ànd ak ñoom wala xoolal ka ci gën ngay jaxasoog moom ida kunta fi qawmin fa saaxib xiyaaruhum ndax ak mbaax moom bu la tëyee rek xoolal ku baax nga koy fréquenté waaye safaan itam noonu bu la tëyee xoolal ko safaanu ngay ànd ak moom yàlla incha allah musal ñoo ngi santaat mbokki jullit yëpp mbokki taalib yëpp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 wa barakaatu.